الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بهديهم إلى يوم يبعثون أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi nga xam ni yéen di leen ziyaar di leen ndokkeel di leen baalu àq te di leen baal àq di ñaanit yàlla boole ñu baal di wax ne dañoo dëkkmal xew-xew boo xamante ni bi kenn ci nitu yàlla yi la bokk ndax dañu wax ne xadis bi dafa wax ne na nga nekk ak yàlla boo mënta nekk ak yàlla na nga seet koo xam ni àgg na ci yàlla mu àggale la ci yàlla ñu fas yéene waxtaane koo xamante ni bi kenn ci ñooñu la bokk muy cheikh al bekaay ibnu cheikh bu Mohamed Kunta bés ba it incha allahu ñu war ci waxtaanee nan lañuy def ba jikko yi defaraat jikko yi nga xam ni doomu aadama yi ñoo ko yor nan la ñuy def yi ci yàqu ñu fexe ba mu baaxaat nan la cheikh al daan yare ci yar ga ci teggin ga ci sutura ga ci dal ga ci bari xam-xam ba ñu bëgg képp koo xamante ni bi bëgg nga ci xam lu bari ñu ngi lay xaar le 15 février incha allah 2020 fii ci Ndiassane di wax ne yàlla dafay wax ci alquran ne ajibu daa'i allah bu yàlla wootee nañ wuy ji bés boobu nag bésu yàlla la bésu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam parce que bésu kenn ci nitu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax Cheikh al Becaye ci gàttal dundam yépp yépp juróom fukki at la ak juróom te bi nga xamante ni bi woy juróom génn na àddina mille 1914 moom ci la toog booba 40 la am ñeent fukki at mu toog fi ba 29 mu génn àddina muy juróom fukki at ak juróom naam at yi néew na ci gis-gis waaye barkeel na ndax booba léegi ñu ngi koy tudd booba léegi nit ñaa ngi jàng ci moom booba léegi nit ñaa ngi roy ci moom muy koo xamante ni bii ku yaru woon la ku daloon la yar nag li tax mu am solo sunu xalifa bu baax bi génn àddina barki démb di alxaaji Maam bu Mohamed Kunta yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem da daan wax ne nit dina am alal ñàkk yar ñàkk teggin ñu boole kook alal ja toroxal nit dina ñàkk yar am dina ñàkk yar am nguur ñu boole ko nguuram toroxal waaye diw am na yar ñu boole ko alalam euh, yaram toroxal nee na loolu mosuta am fenn mosuñu ko gis fenn it kon du am kon bés boobu bésu yar la bésu njàng la bésu ut xam-xam la waaye bésu sàkku barke la waaye bésu sàkku ñaan la ñu ci woow réew mi yépp nag ci ndigalul xalifa bi di Cheikh al Bekaay moom mi nga xamante ni bi moo fas yéene ñaanal Euh, waajuram wu góor mi nga xam ni moo utu cheikh bu Mohamed Kunta ginnaaw bi cheikh bu Mohamed Kunta génnee àddina te bi bi waajuram di génn àddina am na lu mu ko waxoon fa tabarakallahu ahsanal xaaliqin mottali na lépp macha allah ñuy ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla fayal di wax nit ñi rek nañu ñëw ci jàmm dal ci jàmm dellu ci jàmm di ñaan it lépp lu ñu fi ñaan mbaa ñu wax ko fi yàlla na yàlla barkeel lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa interview yi ñu ci defit macha allah bari na dal na yaakaar naa jàll nañ ci lu baree baree baree bari bari kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaan yàlla yàlla yàlla def tawfiq ba bés ba ñu fekke ko comme ni ma ko waxee woon nag bu bés ba incha allahu rabbi taala bu ñu xëyee ci juróom-ñeenti waxtu imaam Sidi Omar Kunta dina jiite kaamil bi ànd ko ak njaboot gi bu ñu demee ba midi ñu jàng xatma bi mu jàng xatma bi bu paree dina am ñaari conférence yoo xamante ni daañu def conférence ci waxtu woowu kenn ki mooy sëriñ Mohamed bu Serigne xalifa Bekaay mooy njëkk a def benn conference bi beneen bi ci des ki nga xam ni moo yor kàddu xeet wi yor kàddu kër gi di papa Abdourahman moo koy def bu ñu fa jógee dem julli tisbaar nit ñi ñëw xéewlu bu ñu xéewloo ba pare pare pare nag pour dem ci cérémonie bi di heures incha ñuy ñaan njaboot gi quatre heures et demi na leen fekk ñoom ñëpp ci tànt ba ñu ànd jullee ci jàkk ji bu ñu génnee rek jubal ci cérémonie bi incha allahu rabbi su ko defee njaboot gi ñu saafante ak ñoom waxtaan ak ñoom dalal leen sàkku ci ñoom ñaan ñaanal leen di ñaan yàlla ñu fekk ko ayaat yu baree bare baree baree baree bëri muy le 15 février 2020 incha allah ci Njaasaan ñu ngi leen di jox daj dox daje ان شاء الله يالنا يالا ديفال نيو توفيق ني فكه كو تيتال كو تي لي نتي جوبل ليب يالا ديفال نيو كو يومبال نيو كو صلى الله تعالى عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله